wal taatufi bi nasratin tatina bisuri mbokki daara ji ci kër baay dellusiwaat nañ ci daara ji ci tafsir quran bi sortu baqara ñi ngi dalee ci aaya téeméer ak juróom-ñeent léegi fiñ taxawoon mu ne di leen tudd yàlla nañ leen ko wone ngeen ko war a même bu dee xamu leen woon nan la ñuy sikkare tey xam nañ leen sikkar nan lañ ko defee <coughs> est-ce que sa kii bi foor na sikkar bi tey xam nga téere da ngay seet lettre misil bi laa ilaha la sikkaru ma jóob la loolu la misri wax sikkaru xaarif mooy du dem da dàqati moom day jeexal dàq ndax tànk yaa ngay xool dàq ak koy dàq ak la ngay dàq ak ngay dàqal kon daa bëri léegi nag ñun ñoo dikk ci sikk foo xam ne xam ne niñ kon ñi ngi sikkar ci sikkar borom sikkar nam laajee sikkar la ñuy sikkaree ngay dem nag ba léegi sikkaru allahu ak laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy allahu allahu mooy laa ilaha illallah du loolu njàngite mais mi maxtaar ba pare nga déglu ko baax suñu mbindab tey ci kii bi lettre misri bi tey fi ñu wanee laa ilaaha illallaah masuñu ko fa wane ñun nag ñu arrière dem ci gannaaw si kër fokkate déedéet même bu dee xamu leen gannaaw waxal nañ leen si kar si karee noonu su ma pare nag su ma afidoo xam nga waa Quraysh la ñu wax waaye bu fokkee bu fàtt na Quraysh mooy tànneef ci gannaaw tànneef xeetu yéen su am xeet ci biir xeet xeet bi nga xam ne mooy tànnee tànneefu Quraysin xaasim Quraysin kii nag dafa am Quraysin xam nga Quraysin bu ñu ko doon firi ci arab mooy dana firi weccet Quraysin benn jën la boo xamante ni gaal gu neex mu këpp ko ci géej gi <laughs> ñu ko tuddee Quraysin loolu yëpp ay ay léeboo lippoon bu ñuy wax la waaw yoo xam ne dafa dikkoon mu ngi dikk waaye gannaaw lii lañ ko mën a léebee ñu léebee ko naka tey liyax eh, piccam xàq téram ak yooyu yëpp xan xan xaaw mahriba picc mi nekk saw jant du morom morom picc yi du morom naawkat yi naawkat ñaraaw la loo xam ne du moromu ñaraaw ñaraaw yi <laughs> loolu kenn mën naa xam lu mu tekki cartewul moo tax yëpp ay livre yoo xamante ni kon su ma asidoo dem leen yéen itam yéen ñi ba nga xam ne tey xam ngeen fi sikar sikaro hmm. min hay su afaada fa dem na fa annaasa gaay gaaya fa gaaya dem dem leen fa annaasa ñu ne fa ñuy ñoom dañ daan beru fële ñu ne déedéet fii dikk leen fi fii mooy kay bi tey te walaay xam nga ne mos ku xam dafa war a xam la kon nag faydu waxoon nañ ko faaw ndaxte faydu day jaar fii jaar fii jaar fii tey nag faydu bii bi mu dikkee am nañu beru taxaw fële mu ne dem leen fu nga xale ne fa la gaa yi dem ndax daay dinaa sut fii wax naa la hunaalika xamal faydu bàyyi bu ko waxee xam nga ne mos waxul ne ay àddina bi dañuy dugg ci faydu bi waxul ne ndaxte ni ma la koy libaalee ndax sa xel xalaat na àddina bi dugg ci te dina ji déedéet kon bàyyi bu ne fay dina matale dañu war a laaj fan lañ matee waaw ndax nit ñi buñ duggoon tey ci nattale ci ëpp ci tariqa dañ dugg tariqa tijaan yi déedéet waaw nit ñi buñ duggoon tariqa tijaan ndax dañ dugg ci faydu bi déedéet kon faydu bi ñu wax ne dina matale fan la mooy faydu bi nga xam ne bu dikkee ci la nit de dikkee nit faydu bay nital nit yi mu ngi mu ngi doog a dikk nii yéen nag bu dikkee dem leen fa nit ña dem nit ña nit ña fañ dem dem leen fa <laughs> dégg de su ngeen pare na wastaxfiroo ngeen ñaan njégal allah yàlla bàkkaar ba nga xam ne moom ngeen nekkee woon ndax bàkkaar dugg fii fii moom balaa nga dugg ngay dikk fii ne ko baal ma soo ma baaxlee ba nga set inna laa yàlla xafooru njégale kat la rëy mu yërëme la di la xamal ne waxul ne rahmaan la rahim la fii pays pays berne la rax xafoor la rahim la rahim mooy pays berndeel rahman mooy pays ñëpp fii nag kii fii dugal nit ñi xafoor la rahim la waaw bu la boo set da nga dugg <laughs> dañ ne sangu ba nga set wécc ñu ne entré waaw <laughs> déedéet xaw de <laughs> li nga war a xam loolu la de موتر tax istixfaar ji yàlla nag ma baal ma baal ma baal ma yàlla nag ma teggil yàlla ma teggil xamuloo ko teggil la yam de waaye da ngay dem ba ba mu yëg ne tartaxaar bi maa il xëy bi buñ koy wax mënoo ko def yow mënoo laabe ndoxam xëy bu ndoxam xëy bu moo la mën a laabal moo tax laa yemasoo ilal ñuñ laabal ñoo mën dugg fii laabal gi nag ngay dikk naw laabal ma moom nangu la laabal gi waaye nag jaara muntu ba ñuy laabee nag soo fa jaaree ba laab booba nag yàcca dugal ci payu rahim ah léegi <coughs> nak fay saa xadaytum su ngeen jeexalee kum sen ponk aji moy léegi ah, pare ngeen aj yeb ah léegi nak xam nga léegi nit ñi mu pare aj yeb dañu del saat nek minan minan nag far yooyu nga xam ñu fi ne bo boo tax ji nga fi yalla na mu tal ji nga boo fekkoon bu ba ci suba sa ajaa yi da nga maam solaat seen ca seen seen yére yi rafet yi alaaji sol seen yére yi rafet yi ah léegi day fi ne xanaa ñaan ajaa dinoon yi da nga leen fekk foofu loo xamante <laughs> dégg nga boo fa fee day mel ni rek ak gi dee kii na commencé waxtaane rek ah yow nag fi ne moom am alaaje ci des ki ngay kay alaaj ajaa ci des waxtaane yoo xamante ni kenn ko su ngeen paree seen ponki aja bu leen waxtaanee ay alaaji ak aja faskuroo tudd leen allah yàlla ka sikirikum na ngeen doon bàkkee abaakum seen bàyyi seen géwél yi ndax jamono bu lislaam bi këgut booba noonu lañ daan def suñ ajee ba aj gi jeex géwél yi jël seen gétt da bàkk seen géer yi yéen def aj gi ren li nga def ci aj gi kenn su ko def rey nga nangami gëlëm rey nga xar yaa joxe gàtt naan gi yaa joxe lekk gi samaam li daan def yaa ko def loolu nag kenn du ko defee tey tey nag ñun Sénégal ak aji aji màkk yi bu ñu bisee ah xew xew ndikk fi mu ne nii buñ dikkee dañ lay bàkk sa géwél dikk di la wuy ngay jël xaalis may du yë du yëfu àll boo ajee màkk boo dikkee bañ nañ ko léegi ba kenn ku ne dañ lay eh, defal ay jàng tàntal la tànt ba kat du tàntab ay kii tàntab eh, wax fa yoo xamante ne ay jalo la nee lu ma xamul <clears throat> bu leen ko aji màkk ba pare bàkkal laahu que sikirikum na ngeen daan tuddee bàkke abaku seen bàyyi aw wala sax asadu na gën a foor si këram ndaxte yàlla du sa moromu bàyyi soo doon bàkk sa bàyyi jël bàkk gën a foor nga bàkk ko yàlla ah fa naa si <clears throat> am na ci nit ñi man koo xam ne xam naa ko waaye duma ko weer yàquur day wax rabbana aye suñu borom aatina jox ñu fi duniyaa fii ci àddina am na ñoo xam ne foofu lañ oh, am na ñu ñoo xam ne àddina rek la ñuy ñaan xalaat xam ne am na ñoo xam ne damañ dem ak bokk da bakk ba ñëw ba ñuy ñëw duñ fa ñaan yàlla seen tiraanga rek la ñuy laaj tiraanga rek am na ci nit ñoo xam ne buñ dañuy ñaan yàlla tiraanga àddina duñ ca boole tiraangay alaaxira waaye képp ku ñaan tiraangay àddina wamaa lahu du am fil aaxirati bu alaaxira min xalaaqin benn benn benn benn cër minam minam minam minam tansiruhu bi maanaa xalaax amul alif ak laam nga dugal ci min bi bi maanaa koo xam ne yow yi ñaanoo yàlla lu may cëru àdduna danaa la jox cëru àdduna waaye alaaxira doo fa am benn cër waaye doomu aadama bu ñaan nga ñaan ñaari cëri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil aaxirati ah am na ñoo xam nii lañu ñaane kon na ku dégg lii del jàng ñaan booy ñaan da ngay ñaan ñaari xéwal wa minhum am na ci nit man koo xam ne yàqulu ma nga naan rabbana yi borom bi aatinaa jox ñu fi dunaa ci àddina asanatan xéwal wa fil aaxira ci alaaxira xasanatan xéwal mooy ajana am na koo xam ne mi ngay ñaan ñaan ñaani te bam ñaanee ñaari ñaan yi nag dafa jëm dafa liggéey liggéeyu waa ndaxte wa an laysa lil insaani illaa maa saa kenn ko ne doo am dara lu mooy la nga jëf moo tax yonent bi dafa am ko ne ñaan ma dugg àjjana mu ne ko dimbale ma ci ay rakk ah kon ñaan dañ koy dimbale boo ñaan tiraangay ànd ak alaaxira dañ koy dimbalee jëf ah ah kalima tayyiba xamul saalim ma ko yëkkati jëf. jikko baat bu tey mooy baat laa ilaaha illa ba ko waxee wéetal yàlla jëf nag mooy taxawal laa ilaaha illa boo xam ne da nga nga ne dem nga ko dàq nanguwaa jëf déedéet kon nag am na ñoo xam ne ñu wax loolu ah, naa fewel ñu asaaba naar yi mu garat xor xam ne ñoo ñaan ñett yii ñaan xewlu àdduna ñaan xewlu alaaxira ñaan mucc ci safara lahum day am nasibun seen wàll min ma ca nga xamante ni kese boobu fàggu nañ ko ngir ndax lañ jëf tax dañ jot seen wàll min googu minam minam laam la maanaam li ajli ma kese boobu ngir lañ fàggu ci jëfin ak ñaan danaa leen jox lii ah moo tax <clears throat> boo demee di aji makka del boole yëpp ñu ne ah waaw yàlla mu ne walaaw yàlla sariwul isaab ko gaaw audit la réglé su lay réglé bitig wala marchandise du am de nga xam bu ëllëgee yàlla dina sonn du raw ay seconde rek kenn ku nekk am sa résultat ndaxte mi ngi nii tey dem lépp lu yàlla wax ne mi ngi ñëw si feeñ na fii tey ah waxuma suñu réew waaye réew yi nga xam ne ay ay cent cent et tey machine boo xamante ni moom bu dóoree kenn ko ne jot sa solt amul yokk amul wàññ amul jaawale amul fii ci réew mi xam nga ne moom sa réew yëpp gën a magee ñu ñorot amul yàggal waskuroo tudd leen allah yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne mahadoo daatin yu mën a compte la mooy lan ñetti fan yi tabaski yi bisa tabaski bi ak ñaareel ba ak ñetteel ba tey loo gis rek bi lay yàlla yàlla yàlla ak moo foor tabaski ñetti fan lay doon ndax danga nga def ñetti fan naa at dégg nga boo defee eh, xaj gi ba pare ñetti fan naa ngay def muhammadiyan ahmadiyan xilaafiyan da ko def kon na ngeen ko sirat te fan yooyu nag fanu ay sikkar la fii ayam moo dara moo tax boo demee léegi eh, war a faanaa làkka zikrak maa la ko yëkkatil mu tiim sikkar yépp booba na ngay sikkar ba pare nag dafa am sikkar yu ëmb ci biiram xam nga na nga demee ngay gis turu laahu spécial na la nabi yu amee turu spécial na la wilaay bi am tur spécial na la xilaaf bi am tur spécial tur tur yooyu nag dëgg dëgg mooy tur ya moo tax nag boo paree fii ci tar eh, kër gi wala nag waaye nag na fekk nga pare ñett ñu dog laa jox eh, mburum gan mi wax maqsadi maqsadi balaa ñu la ko jox na fexe nga pare ñetti setal maqsadi kat ñetti maqsad lañ képp ñetti marsadi nag balaa ñu ko jox ñetti fan yii na ko réglé mooy fan bu njëkk bi fanu ñaareel fanu ñetteel yooyu fan bële ci ngay rey saar yu bi bële nga dikk de nga wax sànni jamroon aqaba ñaareel fan ñetteel fan soo paree nag léegi mooy fan yi nga doon tudd yàlla lii kon nag nam ko defee ca biir boo dikkee ni mu ko koy defee mm. fi ayaamin maa doo foo man daa aj fa ajala ku yàkkamti fu yow may ni ñaari bés gannaaw ba nga xamante ni dangaa dem ñaari fan eh, nga def yow fala isma alayhi amul benn bàkkaar man taaqala ku def ñetti fan fala isma amul ca bàkkaar moo tax man man ba ma demee man ñett am na ñoo xam ne xale yàkkamti eh, tayal buñ dikkee ñaari fan ni ko fa def man dafa ñetti fan laa fa def mi na man ndax tama tama yombul ndox mi jaay dem ak yombul nga dem <laughs> fii nga xam ne ñu ne dafa ñetti fan mu baax lool man ma dóor tuma trois man waaw la <laughs> d'accord kon nag gis nga lii dañu koy bàyyi yow nag muy ah, bu la neexee def ñaar bu la neexee def ñett waaye xam nga ne yàlla lu mu gën a bëree neexal gën la mu gën kon nag boo ne kon nag ki la jaay bu ñaanaa la nga ne ko man maa def bii waaye maa ko def man trois laa koy def ndax xam naa tura yi moo la gën a tee neex nga ne ko man tura lay def kon nag ku def ñaar am problème waaye nag moo tax boo dikkee def sariya ak tarixa kat te dëggu ci yàqul dara waaye nag am na boo xam ne ne nañ bu la neexee waaye bu la neexee booba kat dikkee moom xamula ne buuñaa buuñaa ci yàlla moo gën a for njëkk buuñaa yàlla moo gën a for jaayante gi yàlla boo ko def boo ko buuñaayee bu la buuñaayee fayee buuñaay seetal seetal waxul ne ku ma defal farata waaye laa yasaalu abdi yataqarrabu ilay bi nawaafil naafil ngay buuñaa xam kon mu léegi mu nekk dama buuñaa ba mu bëgg ko su ma ko bëggee doon nappam doon bëtam doon nangam xataa kuntoo kon la la may yàlla buuñaa la waaye du farata yi <laughs> ah moo tax ñu nag ñuy fonk nag buuñaa buuñaa yàlla moo ko dàqal ndaxte kii dëgg dëkk dëkk mooy jàmm la ma ko sant ne xam su ko defee doon du da cee da cee def ay duma lii moom su ko defoon du ci am benn duma mu defal ma li nga xam ne mooy faratee ba defal buuñaa ma may taaxu buuñaa moo tax buuñaa bi yàlla moo gën a force sa li ko defal kon nag lii moo tax nit ñi de buuñaa mu ngi noonu falay soxla yi ah kon nag lii ma ni càqaa nag ci ko xam ne am na taqwaa nag dégg de ki am taqwa def trois moo gën li ma ni taqwa c'est que ma taqwa rek ni mu nekkee ndaxte bii mooy maqaama mi nga xamante ni ndax islam tawbatu istiqaamatu taqwa taqwa mooy trois ca bis bi tawbatu istiqaamatu ak taqwa taqwa mooy bi nga xamante ni mooy troisième jour mu ne ko am taqwa nag nga def fa trois jours moo gën li ma ni taqwa cëy kon nag mbokk yi ko ragal leen moytu na ko allahu yàlla waxala moo xam ne ne annakum naka yéen lu yàgg yàgg yàgg tuur soro na daa ngeen rugg jiite lii jëm ci moom loolu laa ba ngeen xam cool yi lu yàgg yàgg yàgg dañ leen jiital yéen ñëpp ngeen ñëw ci laaw moo tax ndaxte pays nga pays boo dikk day gàddaay pays yëpp laaxu nag buñ gàddaay fa la mujj ñun ñëpp fa lañ bàyyi ko dem fa la ñuy ñibbisiwaat luy yàgg yàgg wax am waalamu annakum ilay ci yàlla rek rek rek rek yi nga jaaral mu yoonu bu la nekk firi kurun ndaxte yàlla rek lañ leen ne lu ngi jiital du lu leen ci kenn laaw rek ci ngeen di ñibbi at tey yàlla yàlla dimbale balaa ñoo ñibbi foofa fekk na ñibbee fa maqaama bi nga xam ne mooy maqaama taqwa amit yaa rabbal ah kon nag <clears throat> eh, wa am na ci nit ñi ay yàlla moo xam doomu am na ci nit ñi man koo xamante ne yow ji ba ko day lay yéem xawlu ko waxam fii la ayat lu àdduna bi nga xam ne yàggul léegi nag ay bi sababun sol bi e, ñu ngi wàccoon ci benn waay boo xam ne ñu ko tuddee al ahnas ibnu suriq naafiq la foo déggee naafiq mooy dugg ci diina ji ànd ak nañu sa jàkk-jàkk lépp te li ngay wax yow caay-caay gi wàññi sa caay-caay gi dara loolu mooy nifaax nifaax ak fisku ñun dañoo langu langu wolof dafa gàtt waaye nag war nga yow mi dégg arab bi boo dikkee nga mën koo détaillé ñu xàmmee lan mooy fisku ak lan mooy nifaax foo déggee fisku caay-caay biti la boo ko déggee ñu ne yow de génn nga maanaam xam nga boo waxee xam nañ ne sa wax ji tegul ci dëgg mooy fisku génn ëtt ak topp nopp dana ko def bët dina ko def ci saa yi mooy def ci ko nifaax nag xol a koy def nifaax mooy firi na fa ko di firi tëj xam nga janax day sàcc ay gerte jàmbur yëpp di dugal ci këram léegi nag day ut kër soo xam ne daf koy def looy looy nii léegi boo duggee ci bër bi nga xam ne xam fu mu jaare mu tëj fële nga di ko ut yow fekk janax génn ba dem mooy nga nekk ci biir diine ji ba nga nekk nit ñi sa xol bi li ko caay-caay ci nekk soo nekkee ci bind ñi ngi leen jullit baax nga nii ngay waxtaan waxtaan bu neex ñu ne as kët waaye boo génne toji kaas loolu mooy nifaaq kon caay-caay gu nekk ci kéeféer gu nekk ci xol mooy nifaaq kéeféer caay-caay gu nekk ci biti wala kéeféer gu nekk ci biti mooy fisq moo tax man ngaa jël eh, xéeféer nga ne ko fisq mën ngaa jël faasiq nga ne ko kéeféer nga ne ko kaafir kon nag axnas <clears throat> moomu dafa nekkoon neex làmmiñ lool ci yonent bi salaatu su dikkee billaahi wallaahi taal billaahi maa la bëgg wallaahi muhammad maa la bëgg wallaahi yemale ma laaj nit wallaahi ma ku bëgg ma bëgg la sax la bëgg maa la bëgg su paree <laughs> man defe na maa ngi waa yow te kat lii nii laa ilaaha illallaah wa mina naasi am na ci nit man koo xam ne yoo ji bu ko dana la yéem xawluhoo waxinam fel ayaati dund addunyaa bi nga xam ne yàgg dunyaa lu tax ñu ko tudde dunyaa mooy dund bu yàggati seetal dund bu neex ci nit fukki at ak fukki at ak ñaar jëm xamul ci neexaayu du adduna la léegi mu dem dem quinze ans mu am mineur mu nekk nag lekk master léegi dem ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at dund baa ngay waajoo ko dem juróom fukki at commencé na naqar nag tey nag jamono bii nga xam ne boo jamonoy mag na sax waaye jamono qualité yi da koo xam ne dafa nekk ñaar fukki at daal di <laughs> na koo xam ne dafa juddoo jabet ndax bàyyi ko wàll jabet boo xam ne ci bàyyi ko jur jëlee kon dafa am kon moo tax ci jamono bu njëkkoon jabet tension ah wax dëgg yàlla man de bés may wax dëgg dëgg damay dégg loolu man docteur waxagul baal sukar baal xorom baal yàpp guddi ba tey dama yàpp yàpp ko du ma ko ba tey <laughs> ah xamoo lu tax gisuma lu tax man damay toog ba yàq wala lu tax ñu ay lii man li wax yàpp ko di dox naa ko yàpp bañ a doxi te du ma andil problème lu tax dafa am eh, dafa am laltaay yoo xam ne te moom yow da ngay dem ba léegi yow yenootoo xam nga foofu ak lii wa saraat yi benn école lekk ba nga xam ne moom la bàyyi yenn mooy lekk mooy naan mooy léppam loolu dana am dana am benn danse déedéet kon nag ngelawaay bu fekkoon ci nit ñi dañoo xamoon nag dundin bii yow doo dem dundin ak kii kii nag bu dikkee nag wax ñu wax ju neex su ko defee waxam ji dafa yéex dafa neex waaye bu génnee <laughs> su génnee seetal wayu si laa moo ci tege de ah? fil xayma naa si lu ma ngay seetlu ala yàlla maa fi qalbi li ci xolom xam nga lu wax billaahi yàlla xam na wax na dëgg ma xol bi ni ma la bëggee waaw man daa xam ku ku janoog yonent yàlla Muhammad ñun buñ ko génte sax kontaan nañ nga janoog yonent yàlla Muhammad billaahi yàlla xam na mbëggeel gi ma la bëgg bëggewu ma ko kenn yaa ma gënal ñëpp yaa ma gënal sa bopp. wa yushir la alama fi qalbi waxuwa te fekk moom ni lay giñal ne moo la bëgg alalul xisaami moo gën a bon ni muy ni lay xase xuloo su génne su dégg ko ne Mouhamad baax foo ko teg Mouhamad mi nga xam ne boo génnee yàq sa berle dëkk te bu dikkee di yow yow rek la su génnee doo dara yow la ci sa kanam bu génnee doo dara am na ci nit ñi de ndax loolu jeex na ba tey tey tey la fi gën a nekk mu mbaay bi nga xamante ne moom la doy conditionnement lakkoon ba mu toogee waa ji ah toog leen ma dem ci ba tax na bàyyi dafa benn grand place boo xamante ne mooy grand place bi nga xam moom fa la ñuy dalee ci kaw bàyyi chaque samedi ak dimanche ndoy conditionnement fa lay day bàyyi koo Kaffrine boobu Godora Godora amagul raanaa la mu dikkee bu ñu dajee foofu nag benn ah xaaral dem saa dem ñaani ko mbubb mu ñëw si Cheikh Ibrahima walaay ñes kumba yaa ngi mbubb mbubb rek laa bëgg bàyyi jël mbubb mu rafet jox ko mu dem ba mu demee ne ah yéen a ngi sa gis nga mbubb mi sa sa waay may ndoy na ko jaay mbubb mi jaay mbubb mi mu ne jaay ah ndoy force ko pire prix mu ne kasaw loolu kasaw ko fay jaay na ko ndoy compte fay ko jël bu ma teg dem jënd pétrole sotti ci arrosé ko lakk mbubb mi <laughs> ba mu ko lakkee dem ca euh, weekend bi weekend bi jeex booba Kaffrine amagul courant mu dikk booba frigidaire gaz moo fa nekk mu dikk ba mu dikkee ba mu danga maam montaat gaz ba mu ne taf gaz bu kalaat ko tëf sotti lakk ko ndooy lakk ba ñu kaaw yónni yóbbu booba Kaffrine amagul hôpital ñu kaaw yóbbu kaw kaw la ba ñuy demati sooy lépp mu dee dëj bi ku dikk dee dëj bi mu jigéen dañu intérêt bu kenn bu kenn dikkati <laughs> lii am na fi kon nag lii lii ñu doon wax ci yonent bi ñun dañ koo gis ci dañ koo gis ñu nii ci bàyyi dikk ci bàyyi gi ñu ko wax ko nekk soppeem Baraam Diop dégg na mu ne benn waaye dafa bàyyi ko ndax dégg na ko dem ci benn xew dem na ci xew ba ñaan ba may ko mu dikk na ko bàyyi man day ñes gumba soppaleen moo tax yow yaa ma tax a jóg tey <laughs> bàyyi jox ko la mu ko jox ba mu génnee mu ne ko demal yàlla jox la waxoon nañ wax nañ ma ne ci xew diw nga dikkoon <laughs> dégg léegi kon nag démbay teer am na ci nit ñi woo xam ne dafay dikk génneel na maa la bëgg seede loo yàlla ci xolam boobu alalu xisaam fekk moo gën a bon nam lay xase woy saata walla boo nee bu la génn sa sëkk sa néeg bu génn fi nga toog saa muy dox fil àdd ca réew mi lii sëriñ lu yàq fi ci moom su génne sa sa sa sa kër commencé na yàq na sa der yàq réew mi jëw ak tas ak yàq mbokk way yoolu kal xar sax cetal xanaa tooli lii ay tooli surgaam la ceeb yàq tooli ja tooli tooli tooli tooli sax tooli taalibe bi dégg nga wanas la ak jur gi ay gàtt taalibe la ceeb foo mu gis lu taq ci yonent bi rek da nga ko yàq dal ci koom yàqal taalibe yi seen mbay ak seen jur ah yàlla ne ax nas def na lam def waaye walaaw yàlla laa yuhibbul fasaad yàq yàlla bëggul yàq de kon nag gannaaw ma nga ci yàq ba mi ngi ci taasi moo tax yàlla boo nitu yàlla boo ko defee ba mu xam koy du la faale waaye nag hee yàllaa ngi fiir ci wa fiir ci fiir ci waaye wa isaaqiloo buñ ko ne ittaqilaa la yàlla itam soo xamee ña ko xam xam ne bandi la saay-saay la moroy bandi sax mën nañ ko di ko waa yow ñoom ñoom am na bandi yoo xam ne luñu dikk ci yonent bi dañ koy jëpp moom waaye ñenn ñi dikk na ko waa yow doo ragal yàlla ah dégg nga eh, eh, ali satu jëm jomm gis nga la soo ne ko yow diw li ngay def rafetul baaxu e eh, maa tay waayo mooy jomm au lieu mu au lieu mu regretté maa tey yow lu sa yoon dugal fi lu sa yoon nekk ah baaba tey da nelaw <laughs> sa biir ah da nga boo boo wér boo wér <laughs> <laughs> dañoo naqaree mucc nag ah dégg te àq ak aliy satu gis nga lii kat day day day day day maa ko tey lu ci sa yoon waaye sama yëf lu ci lu ci lu ci dëgg maa ko def lu bu la naqari deyal loolu xisatu soo ko waxee àqasatu alxisatu jom jom bil ismi li def bàkkaar yàlla ah bande bàyyi rëy ci sa phase boo doy na ko jaxanam jaxanam baax na maa ngi koy dencal safara wala bii sa bon na almihaado fa muy tëdd bu ëllëgee seetal kii moo tax biñ dikkee ci aaxaratu duniyaa mën nañu yéex fay waaye aaxaratu fii moom seetal ah daama nii baa un wa taa un naa la koo laamun wa saalun xam nga loolu bàyyi xam daama nii tooñ na ma baa ak taa tooñ na ma waaye dóor naa ko laam ak zël yii kenn mës naa xam xeex bi nu mu doyee ndaxte baa ak taa kenn ku ne xam ne ne moo doon borom dëkk kii même yow mi da ngay nelaw tey <laughs> ah dégg nga baa ak taa mooy borom dëkku Kaolack mooy saaru saare kat mbu saare kan la ndax Kaolack sa ndaggaa saare ah saare borom saare boobu la <laughs> dégg nga mu ne borom euh, saare dëkk bi day borom dëkk bi day tooñ na baa ak taa waaye dóor naa ko laamul wa zaalu mooy la sullu ji firi toroxtaane zël mooy zëlu laam ak la zël ak ak mooy sullu gàcce dina ko torox torox dal na ko de te wallaay yàlla bul xam li xew li xew ci kooku ak ak ñoom ñaar seetal salama ne jaraafu alu xam nga jaraaf jaraaf lu mu tekki mooy eh, eh, kilo bill de serre yi yi dajji garab yi noonu ah bill de <laughs> nag xam nga ba déggee jaraaf mooy boo demee ci yonent bi ne ko waa ji doon tabax jàkkaam ja masjidu dinaar ca Medina waa ju ñu tuddoon moo dem nag eh, mu ngi tabax témba fi safaa juru fin haari mi ngi tabax nag jàkkaam ja ca pegg safara léegi nag jaraaf googu bàyyi mu ñu tuddee mu tuddee jaraaf mu ne jaraaf ne jaraafu ahlu naar tooñ na ma waaye nag ah yàqodoo ilaa dàngam <laughs> ba mu jeex moo tax gis ne lépp loo déggoon nag résultat ba da koy gisee fii fii nii kon na baax na xafaas doona ko jaaram wala bi sa ko na almihaat <laughs> yomal xeex afta bon foofu ñu tudd am ba tey band yaa ngi de wa mina am na ci nit ñi ah, léegi sababu aay bi ah, saay bu yi moom saay bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah, nekkoon na ci mag yonent ba mu gàddaayoo mu daal di génn ah dem ca hijra ba ah, ànd ak juróom-ñetti kuréel ah léegi nag moom sooy ba juróom nañ ca pegg ba pour bëgg a génn ñu ne élevé daje ak ñoom ñu rey àndoo sooy yëpp ñoom ñëpp ba mu des moom ah ñu ne ko nag rey nañ sa gaa yi sa xel bu mu dañ ah fekk nag ma nga yore woon moom fekk la fettkat la moom ma nga yore tungaar xam nga tungaar bu ne xamatu tungaar tungaar mooy bal yi nga xamante ne xam nga boo boo yore boo yore jamono fett da nga yor benn benn mbuus goo xam ne ci ngay def bal boo demee ne tay boobu tam nga roccaat bi leen joxe loolu mooy tungaar mooy mbuusam fettu la <coughs> booba fett mu ngi yore mel mbuusam fettam ñu ne ko nag doo dem mun leen bàyyi ma gis ngeen ñii ngeen rey jëlul su ngeen jaari sama diggante gis nga sama fett yi du mooy de te walanteeru naan fu yonente fekk nekk naa fa dem jaay naa sama bakkan nag ñu ne kii bàyyi leen ko kii bu ngeen ko jaar bu ngeen ko attaqué ma rey leen ñu bàyyi ko moom la yàlla di wax nag ndaxte lii foo diggee ca kële jël na bakkanam jaay ko ci àddina kii jël na bakkanam jaay ko ci yàlla kon ñaar yi laa lay war yow mii nga xool sa bakkan bi nag nga ci ban nga ko ci topp ci walanteeru ngay topp wala tay tay wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yi day jaay nasaxoo bokkanam ba ibtiqaa mardaat laay ndax sàkku ngërmaani laaw rek kontaatee laaw def lu laaw kontaat jaral na ko rey bakkanam rey bakkanam kon nag ji nga ko de xam nga li tax alquran lu dikk na diw ndax fi mu ne soxoy bu mii képp ku taxaw taxawaay ba yaay soxoy bu axnas bële ku taxaw taxawaay ba yaay axnas kon axnas deexul soxoy bu deexul defin wa ngay seet nag yow man definu Anas lay def wala dafa ne definu Soyb lii ngay jàng alxuraan boo jàngee ay ngay ngay ci ñaar yi kii moom dafa jaay bakkanam ci àdduna fii la mujj safara kii moom dafa jaay bakkanam ci yàlla fu mujj aja kon nag lii mooy mooy lii basiiran wa nasiiran kon bégal nga ñi nekk droite waaye xuppa nga ñu nekk gauche lii nag kon nag mooy ji koy alxuraan dafa indi ñaar ñaar mooy sab'an min al masaali indil naa la ñaar wa min kon nag doot benn nit nit ku mel ne que nit bi rek am na ci koo xam ne ibtiqaamadaat lay ah kan la mooy sooy bu mu daal di gàddee nag jëmmit wallaahu laahu raoofun ku am ñeewente li ibaat yi gis nga foofu rafatu bi la roof sooy bu ndax roofatu mooy yërmaande boo xamante ni moo lay protéger lut xam nga lutfu latiifu ak rawoofu yërmaande yi lañ yoo xam ne bokk la xam nga du ko la c'est moo la sànq waaye lutfu moo la roof ci biir lutfu day nekk ci biir defar sa organe bi nii moom moom latif boo gisee ñuy bëri latif yaa latifu yaa latifu hmm. day defar organique bi ndaxte seetal jaanu naka naka ja way saan jaanu biir damay nekk ci biir yaram de dugg fenn fu nekk yàqalu ko dara dugg ci sa bët yeeg yëpp te yàqalu dara lutfutu ilaahi moo jaar fenn fu nekk nag loolu la xañe ci yow hmm. moo tax ñuy bëri yaa latif hmm. rawat na su fekkante ne mën nga ko def mille par heure par heure soo ko mënoon soo xëyee def mille soo gontee def mille nga essayé ko continuer ko seet ba xam bu doo ko mën a jiital nag téeméer salaatu fàtte nga def cent salaatu fàtte def yaa latif mille suba mille ngoon addi yàlla ko yonent bi ah lu tul dana dugg de <laughs> mooy loo gis rek dafa am lu muy joxe lit bi yàlla ci loolu lay kii def lay seetal sa organe yëpp lay la dugg amul fu man day yéeral bët day def lépp xam nga li ngay gis may takk weer bëri bu ñu ñàkk bu dama takk weer te dëkk dëgg yàlla dafa dëgg tey day ba di dañ gaaw yàqu da nga gis xamante ni dañ am fukki at wala ñaar fukki at dañuy meew gis nga dafa am yoo xamante ni dafa naqaree wax yi ba bëri ba këri waaye lëtif ni nga koy jëlee da ko ñaanee àddina soo ko doon ñaanee lutt bi duggul sa gi sa yaram yi ah day gën a baax na wallahu laahu raufun ku ñëwati leen ibaad jaam yàlla ñu bokk jaam yi nga ibaad la am jaam jaam waxul na nit ñi bil ibaad yi la ilaha illallah gis nga lépp loo wax boo gisee sew sewu alquran dama koy wax da ko waxaat dama bëgg ngeen jël sew sew yi waaye jàng nañ alquran wàcc nañ yàkkamte sukkaru koor wala ñu def bésab cérémonie bi nit ñi daje man yàkkamtuma cérémonie bi xam nga lu ma bëgg ñu dundee alquran <laughs> waaw ànd ak nag buñ cere eh, buñ cérémonie boobu bu ñuy cérémonie da ngeen def dara waxuma waxuma xaw ma taxuma dara waaye taxuma <laughs> cérémonie taxul may jàngale taxul may jàngale waaw sukkaru koor taxul may jàngale ànd ak bëgg naa sukkaru koor nag waaw li nit ñi bëgg yëpp laa bëgg nag waaye nag li leen puus puusufuma man amul tey jàng bi yëf neex na naa wax ca kaw wala nit ñi bari nañ naa wax ca kaw sama yoon <laughs> man daal taay toogee ba heure bi jot bañ ubbi kaas la ma xam ca lu ma war a wax la yàkkamtiwuma bu leen yàkkamti waaye nit ñi tey ah oustaz daal lii daal xam nga ah waaw yooyu ñun daa mbaa day jeexal bàqara ku ma ko doon lay jëm yow bu yeboo ñun kay ñun bàqara bu jeexalee bàqara baax na yaa yu xaalis yéen yéen nga xam ne aay bi ñëw mi ngi wàccoon ci Ablaay ibnu Salaam ak ay àndoom ah bañ duggee ci islaam ah léegi nag dugg ci islam te bàyyil sa aaday maam mu ngi nii xam nga ñun li ñu yàqal kenn ku ci nekk yaa ngi ci diina ji waaye am nga ruq soo bàyyi mooy sa aada maam diina boo ci duggee amul aada maam amul aada kenn dégg nga yaa ayyuhaa llaziina aamanuu udxuluu fi salmi dugalal sa diina amul ngénte yi ngénte yi ñun nii la ñuy ngénte amul ñii ñu lay amul ñii la ñuy tuddee ni lañuy defé dara yalla waxal na ngeen te niñ koy defé dëj niñ koy defé ciet niñ koy defé tak jabar niñ koy defé ma tira doxlan tira yalla waxal nañ ko niñ koy defé bu ko rob ñom nak ablay gis ni li ci ay bu nek ndimbal la ablay ibn salam ak gayam dañ dugg ci diina ji waye bisab samedi xam nga yëngu dafa dafa mokal bisab mokkal bésab samedi ñoom nag ñu dugg ci diina ji tay dess màggaluñ ajuma ñuy màggal samedi ah <laughs> loolu du fi dox de ci la aay bi wàcc na ah dugg ci diina ji toppatoo beneen beneen ñaari diina luñ ànd moo tax dama lay wax ne toujours fi xel bàyyi leen jaar leen fu ma jaar man araada an yàqoon na ma xëy fal yasluk tariqi fil aqwali wal afali ku ànd ak man jaar fa ma jaar ci wax yi nag defit waa léegi nag yow wax ji nga wax nii ak defin yi xool ko ndax bàyyi def na ko déedéet kon bu ko def ndax bàyyi def na ko waaw kon naa ko def kon nag lii mooy génn nga ci sa aadaay maam waaye <laughs> xam nga léegi damaa am sama benn maam boo xamante ni tëggkatu sabar la woon ci yu laa ne ni <laughs> ma dikk da ko maam yow nag yow nag kii li tax mu ne waaye ah, doom sama maam moo mënoon tëgg sabar waaye bàyyi naa ko léegi waaye tëgg bu déggee xam nga tëgg tëgg léegum tëgg boo ko defee <laughs> waram leen fecc kat mënta muñee dënd moo ca nekk am na ñoo bi ndikkee am na ñoo bi ndikkee dugg ci diina ji seen aadaay maam yooyu moom dañuy dem moom yàgg ñu fexe dugal ko ci ah, di ko ci dugalaale ah dalay sëriñ dalay musal dala mosal foo ko déggee rek koo xamante ni dootu sëriñu kese moo ko tax di fi sëriñ bi <laughs> kon nag fii nii liñ jàng tey ci jaayir maa ni boo duggee ci yàlla bul bugg bu la defee lu la neexam bu la defee lu naqari na la xem képp ci waaye ñun ko am taalibe di ko def lu ko naqari ñaari fa ñett doo ko gisati mu dem yoonam te nag ya da ngaa war seetal da fekk sëriñ bi nag taxaw taxawaayu yàlla mooy daf lay léegi bu lay defal daf lay lu lay def yàlla tax seetal euh, laaj ki nu xoolil seetal war da bi sayqika ak kaaka laaj ki nu xoolil xëyri alxadaak foofu la nit ñi déggu nag benn waaye firi na ci woo na ci mu ne man li ma kontaanee firi boobu xaw ma nuñ ko firee war na xam nga léegi da ngay dikk rek ci mu xat yenn mu xatam yi so yi nga xam ne dañuy def lu neex ñu ne sa sëriñ bu la jooy na sax da ngaa war a kontaan waaye nag dafa bàyyi benn satar ba laakinoo waaye nag xaddaaka lil kay na fekki orienté la lay def ci mbaax du waaye jooy la la pour intérêt dafay orienté ci lu baax loolu ñu wax de waaye nga jooyle ko laa lan bëgg bëgg ko na farax mu jox la yooyu waxul loolu de lakinnahu lil xayri qad hadaak ne la jubanti teg la ci njub kon nag mi ngi nii Abdullah ibn Salaam leeralal nañu yaa ayyuha allazina amanu eh, yéen ñi ne gëm ngeen ba àddina jug udxulu dugg leen fii salmi wala fii silmi kaafatan seen lépp lépp lépp lépp ci dugal sa doxalinu àdduna yëpp yoraan doxal teg ko fële jëlal yére yi nga xam ne mooy yére lislaam nga duggee ko ci lislaam xam nga léegi am na comment yi wax ne mi ngi may laaj ci loolu eh, eh, dégg bu subaa koo daay koo daay eh, koo daayal koor ak koo daayal <laughs> koo daayal bu dul kori jullit amul koo daay kori koor ak kori na nga war a suutaraale si yaram amul koor amul wori comportement ah comportement wu boo nekkee ci woor ak comportement maa ngi <laughs> ko suba rek waaye suba laa ko suba laa ko jox rendez-vous <laughs> parce que yooyu <laughs> man xam naa man xam naa gars yi duñ ma yu bëri duñ ma seet si yow kooku étudiant moo tax mu dama seet waaw xam nga li xew waaye gis ñun dañu war a jàngal nit ñi doo bugg bugg naxan nax taalibe yombalal taalibe bi ba ba dana dugg ci taalibe gi doo ci doxal la sa digganteeg moom te du ko yàqal aadaam xam nga moo yàq boo yi gisee Ndakaaru yàqu fi ne kër gu nekk ñu ay tuuram fa ñu ci ëpp am nay tuur su ko defee nag nga bëgg nag ndi tuuru ba pare te nekk ci tariqa bi ak kii yàq te seen sëriñ yéen yàq yàqu leen ko baaxul de kenn dugg ci lislaam di tuuru ku tuuru këram boole ko diina nekkatoo ci diina udxulu fi selmi kaafa waaw ndax lii dañ ko wax ci yi ak yi ah kon nag bu yeboo <laughs> ñun nag ñun nag ñun dañ bëgg majorité majorité du teew ñett ñeent juróom baaxul acca nañ dem <laughs> kon nag jigoo de amul dugal sa aadamaam aadamaam amul fii ji nga tey ji waaye bu njëkkoon bi nga xamante ni eh, dëgg-dëgg dañuy wax te waaye tey la nit doo doog a dugg ci lislaam gone ñimewul muuru gone jigéen jànq xëy seeb ndiiri sa muuraay gi de danga may tënji man seetal sa yaay ne kon moo kër ndax danga may jë danga nag ah danga bëgg a muuru nag dindi la bu ma bu ma xalak man suñ xale jigéen bu njëkkoon ki ñeme ko fi mu nii boo demee njóobeen xam nga jóoba jubbu dégg nga jóoba jubbu nga daan dégg lu tax am na jubbu yoo xam ne boo dajee ku sant jóob rek xam nga ne ah sëñ na ko ba nga xamante ni njaayeen li ñuy pàq dafa daan am pàq dégg nga pàq boo xam ne fii nga koy def bu ko ko xam na ci waa njógeen la loolu yëpp lislaam bëggul ko lislaam gis nga fi ne ba tey dem nañ dem nañ musiba tey mooy lan foo takk foto sëriñ takk foto sëriñ boo duggee ci biir diine ji wane la man misilmaa la waaye man maay taalibe diw dafa xaram nga dugg ci lislaam da ko ci wane bàyyi ñes mu ne man balaa ngaa xam ne tijaan laa wus wir da jot wala wasifa du la wax man ngaa ñu mu ràng ko kon foo ko jëlee waaye waaye déet bu dugg dañ dañ dañ dugg ci dina ji bëgg a jël seen aadamaam du fi dugg bu la neexee nag yaa moom sa bopp de ndax ci lay siital nekk te laa ikraa fi din mooy tariqa amul force kenn du la force de waaye nekkoo ci bu la neex wax lal nekkoo boo ko defee ñun xam nañ nekkoo ci tariqa tijaan nekkoo ci lislaam nekkoo ci eh, eh, faydu bi ndax lislaam yaa yu àll seen uquloo fi selmi kaafa sa lislaam bu ci sa tariqa feeñ bu ci sa faydu feeñ bu ci sa aadaay maam feeñ dugal ci kaafa tuu tuu tuu nga ci dugal waaye man ah man kay ku dee gis nga fi nii Sénégal bureau boo dugg xam nga koy sëriñam oto boo dugg xam koy sëriñam néeg boo dugg xam ko sëriñam lii nii dëgg-dëgg bañ ko defee lay lislaam séddale ko Baay Ñas mës ngaa gis mu takk foto kenn Baay Ñas mën nga mu bàkkur di yàlla alhamdulilah ñun nag ñu dikk nag roy këri jàmbur yi baraw këri jàmbur yi tey ni ñooy takkee foto Baay sax ñoom dañ ko dañ ko dañ ko takkee déedéet man de damay wax ne man damaa xam man su ma gisoon foto Baay fu ma jaayee waaye foto yi ma gis nii du foto Baay billaahi wallaahi maa la ko ñun photo bay walaw sawaroni fil haqiqati lam yaro si waa sax sa moom ma boobu nga mën a photo waaye man Ibrahima Niass moo ko waxoon de boo ma jëloon photo photo ma soo ma soppee nga mën a gis jëmmam jëm waaye mënoo gis ma jëm kan mooy soppeem mooy gis mu Muhammad Raw jë wala gis mu waaw léegi nag ana kon yaram ak Ibrahima ko ko photo ana mu man ko ko photo mënoo ko photo kon nag ñii photo yi kon yow ki nga takk ni kan la moo tax ñu ko. bilaay da dugg ci xiram sax te du ko yëg déedéet am na ñoo xamante ni tey dañ teg fu ñuy fu ñuy wir daax ah, jël photo ba teg seen karam yi di ko xool ki ngay xool du bàyyi de <laughs> kooku du bàyyi de billaay li ma ndax nii damaa bëgg ñu am diina joo xam ne buñ ca buñ di du koot du am benn benn benn tilim tilim yaa yu àll seen am lu urkulub seen mi kaaf bàyyi leen xamb yi bàyyi leen di nga maam wane na man may fii ñun nañ buñ ay buñ di ko ne innamal muminuuna ixwatu daayiratu iman fa lañ mën a dugg tey nekk waaye daayiratu islam te da ngay dugg islam ba pare boo duggee islam nag nga ràngoo ni nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy iman bi kon nag eh, loolu laa wax kon dugal leen ci selmu selmu mooy lan mooy lislaam kaafatan seen tuut nag nga ne mu ne wala tatabi on bu leen topp xutuwaatu seytaane ay tërëli seytaane yi nga xutuwaat waxoon ne siraat xutuwaat ak si ak subala bu leen topp xutuwaatu seytaane yi bu leen topp li nga xamante ni doxalinu yàlla li mooy lan lépp loo gis manifesté wul rek xutuwaat la moo tax dina ñun il faut ñu wanewu waaw waa waaw waay Sénégal ay Sénégal doom day tàbbi génn génn nañ ci ceddo ga dugg ci ceddo boo xam ne ceddo lëmas la xam nañ ko ndax li ceddo la lépp loo xam ne boo ko defee dafa génn ci lislaam ceddo la jaam sirku kon nag mi ngi nii bàyyi leen ñelli ñellaan yi wala te boo xutuwaat seytaan ah bàyyi la ci karaw nee na mas naa ànd ak bàyyi ñu bàyyi koo kóosi bëgguma tuddu kam wax dama ne ko sant ñang la mu fekk ma nga rogo a course mu dag mu dag kurs gi ne ko lu ngeen gisuma may def leen ko def ba yalla di karaw nga xana baye ko tuddee kiraw mo do ilimaani juma yi tay bañu set mom moko mom ala jox sama askar bo le mom moma bobo ko affaire kur bobo mu ne ma baye nak man ak diw ñi ngi dikkee diggu sant ñang mi ngi yor kur mu dag kur gi ne ko lu ngeen gisuma def ko def ñi ngi ni de kon nag foo jëlee li nga ràngoo te koo ko jox tey mu mer fecc bi koo jox mu mer tey li ma ci gën a naqari nag mooy ñi leen ne mer le mooy ñoo xamante ni dañu am ci moom intérêt intérêt déedéet nañ bañ fu yoon nekkul nañ nangu ne lii du yoon wala tata bokkatu ak seytaan innahu moom seytaane xaduwu ko mu seen noonu la de noonu nag du la wax lu mooy lu bon waaw lii lu ci nekk kon nag yëngu leen ci yëngu bàyyi bàyyi mas naa yëngu ci yëngu te boo demee de te na ma naqare mooy dañu xamut man nii ba mu ci taarifee téere 87 kenn xoromalu téere bi waaye nag téere bi am na xorom ñu ngi koy dégg fi ne ci àdduna fu nekk kon lii yëngu leen ci yëngu amul fii te dëgg-dëgg yàlla li gën a baax tey nga gis taalibaay dimbale bàyyi di mën a bàyyi daa bàyyi nit nit hmm. ala asiru axta fii sawinuha man maa ngay dox ak a tourné seet ni nga xam ne mooy borom xel yu baax yi hmm. nga xam ne dañoo bañ lu bon bëgg lu baax ma defar leen hmm. gis nga bàyyi bu la gisee ñaar yi bu la ko gisee complet moo ci des doxal nga sa sariya doxal sa tariqa lay complété rek boolanteñ tariqa ak sariya ah jamoo sariati maa tariqati ilal haqiqati wala loo siqati boole sariya ak tariqa jël xàq boole ci bàyyi ne moo xorotul uskaa boo déggee moo xorotul uskaa mu ne buum googu man ci laa leen éeg moo tax jàpp leen faxtasi moo bi Ablaay ak lii de moo xorotul uskaa lan fi sama laxa ñaari buum yii buum ak laaw te it la lay jox buuma xorotul uskaa mooy maarifa xàq bu wér la jox li la jox mu ngi nii de ah lu ma la wax naa la indi nag ko bàyyi xel jamono sari ati ila tariqati maal xaqiqati xoral xa xoraa dégg nga xoral wasiqati ñu nii kon na bàyyi leen ñell ñellaani ko ko ci topp innahu seytaan la innahu aduwun mubiinu lakum noonu bu wér la te moo ne kat ko gis nga yàlla aadama mii nga jël teg ko sama kaw tey te xam naa ni dama am ay doom la aatanikanna suryatoo seetal baatu di gis nga iblis moo gën dinaa raafale jeexal takk takk ay sëtam kenn doon topp Iblis nag bu waxee euh, xam ne juum na mu ne ko ah ilaa ibaadaka minhum xanaa daayiratu ixlaas ku ca dugg waaye ku duggul daayiratu ixlaas man man man kii man Iblis daal la daal la xam nga luy ixlaas mooy tawit boo xam ne boo defal ca dara waaye teel ko yàgg naa ne yàlla ak sàmba yàlla ak demba yàlla ak nangam Iblis am na ci yow yoon feeg bagage yi Iblis daal yaa ngi ci bëgg dara te muy at di bagage adduna boo ci bëggee mu ne ah damay jaay dem iblis iblis iblis du may war marchandise de rokk mi rokk rek roo ma rokkee nii ma la nii moo tax jinne fii ne nii boo gisee tey sëriñu kii yi bëri mooy jinne jinne day jaayante du mayante du leble may defal lii ma defal lii kon nag moom nga dégg bu ëllëgee ñu ne ko ah yàlla istantaa ba aduna bi dañ daan jëriñante de nit ñi yaa masaral jinni xarit sa xarit sa sartu na leen si ay jinni yi seen cër bi ngeen am ci nit ñi bëri na de nit ñi ne ko ah, yàlla jëriñante lañ leen ñu ne waaw lu jëriñante jinne ak nit jinne mën naa dikk xamal la xabaar boo xam ne kumpale ci kuy dikk mu dikk nga ne ko diw sàngam mu ne ah fu ma xamee fekk nag yow jinne xam na tey bu jinne yaa ngi jox dañu jinne ci benn man nga xamee jinne malaaka man ko xamee te yaa ngi toog ak malaaka yaa ngi romante ñoom ndaxte yàlla ne bu ma wàccoon bu ma wàcc dañu ko wàccoon ñu malaaka mu ne yàlla su ma wàccoon e, malaaka ah kon la jax a rajulan kon góor lay doon tey bu nekkee góor li ngeen oddoo yéen góor ñi lay góor lay oddoo kon man ngaa xam ne malaaka malaaka buy dugg fii amul ña amul amul droit dikkee dikkee cëru malaaka fii suñ kër la ndagay sol liñ sol boo ko toog du fi dugg fii suñ kër la jinne yi gis nga ko def jinne mu bëgg a def day seet ki nga xam ne mooy mbubb yi man naa dugg ci rab man laa dugg ci nangam def liggéeyam waaye nag li leen li leen jaaxal mooy sariya alquran mii ak sariya boo ko jëfandikoo jinne daf lay daw moom la gën a bañ ci kaw suuf jëfandikoo sariya man naa laa may nga dugg ci tarixa bi waaye nag bu fonk sariya man naa laa may nga dugg ci fayda bi waaye bu fonk sariya ndaxte lii boo ko defee du ma la defal dara nga ne kon ah man kay moo tax formation yëpp mën nañu dugg ci diine ci tey lii nag la nit ñi xam jinne mii suñ noon la te la ko yàlla déclaré woon démb tey la nekk noon kon nag yàlla nañ yàlla xamal nag li nga xamante ni fa lay yàqalee ah sa xol bi bi ak sa siru bi fa lay jaar ndaxte foo nekk ñoom ñëpp ñoom ñoom ñoom moo dëkk ah, kon nag <clears throat> innahu adunakum mubin wa inna sal wa in salaltu fa in salaltu hmm. seetal de yàlla xam ne doomu aadama tarxees hmm. fa in salaltum su ngeen tarxeesee ndaxte tarxees mooy leen ndëgg lu rëccu yow taxawoon nga si nga taxawee seytaane fexe te wàññi sa taxawaay ni nga dëgëri woon pas-pas ci diini ji hmm. ni nga taxawoo dëgër am ni nga ci jaamu yàlla mu fexe ba découragé fayin kalaltum bu ngeen tarxeesee min ba di maa jaakum gannaaw bu ñu albaynaatu ay lay weer yi mooy alquran ma jàngal la alquran ba mu leer nga dem yëgoo lu may seytaani tarxees la ah fa alamu xam nen na an laa yàlla asuntu weekul yàlla weekul de loolu laa bëgg ngeen xam bul ñàkk fayda di dem alquran dégg ko pare di dir wax keneen soo déggee wax ji ba mu leer nga dem keneen tarxeesoo la te nag ñun ñoo gën a bëri tarxees ka tey tey cadre yi jàng tey tey ni nga xam ne ñooy ñu ne kilifa lañ li bàyyi wax mu ne mu ne sax yi mun ah kilifa koo xam ne moo gën a réer accalu jaahili bàyyi na ah diina ji de xaw fu mu jëm jiite jiite ay taalibe te yaa leen gën a réer taalibe yaa ñoo la gën a jàng mu ne ko nag faqat bala xas say rusula <laughs> kon ne yoon ne ba jot na ca géejo ba te mooy nag léegi mën nga seetal da ngay gis ku xamante ne sa xale boo xam ne yàqu yar boobu am diina mu dajeeg bandi boo xam ne mu ne say kumóora bi la wala da nga am ab la sëriñ nangam nag mu dikk da nga am fa mu nekk ba topp ci euh, euh, groupe am yàq diinaam ba mu yàqu tarxis la tarxis la bàyyi ne salal law xan baadim ak daamu fal tasmaan biim fa fii ka xaamu ba bàyyi des ndaxte boobu jamono bàyyi ndaxte ndam cere tarxis amoon waxuma jamono bi zallat tarxis na lahum al taalim ak daam bekk na booba am na ñu nekk ba pare def dox ak ma suuf bàyyi na yàlla am na ñu taraxi si gaa yi de <laughs> dégg nga xan baadim aqdaam sàllalo xan baadim aqdaam waaye ne far tasman bi baal leen ndax ta fi fii ka dañu gërëm ci yow soo leen génn duñ dem de kon nag booba jamono moom am na koy itam xam ne niñ tarxees nañ mu ñaan yàlla yàlla gindi gël taalibe waaye tey ñun buñ ku tarxees jàpp ne tarxees nga hmm. dañ lay ñaan que yow yàlla yàlla yokkute taalibe rek yàlla mborom yokk rek yàlla yàlla mbokk yokk mbooloo mi moom nga fi dégg de mbooloo mbooloo mu taraxis nga nekk yàlla yàlla yokk mbooloo du moo fi nekk yàlla ci yàlla mosal <laughs> mi ngi de kon nag fa in salaltum bu dee tarxees ngeen min ba di maa jaar ko bay naat gannaaw bu nga dikk tarbiya ba xam ne dëgg dëgg lii mooy tarbiya mooy xàq nga dikk ba dem fannaaw nga xam ne da nga yàq nangu nga dem tarxees di topp di bàkk bàkk nit uti yàlla di jaamu nit uti yàlla waxi nit gënal waxi yàlla tarxiis mën ko pas na ngeen xam nag ah fa alamu allah xasis man man yàbu moo de te na xakiimu ko xereñ laa xam na ñaari indi ñaari baat yi indi fii dafa am solo yow mi nga xam ne yaa dikk ci diine ji ñàkk fayda de borom ku ñàkk fayda dikk la dana duggaloo yoonu ñàkk fayda na nga xam ne nag man yabuhuma man ma ku ma yeb de te it ko xereñ laa xam naa ne lay génnee boo demee sama téere bi yàlla bu bëgg a génne nit ay nit dana am mbaal gu mu defee mbaal gu ma la yóbbu seetal fi nii nii yàlla nappee ay yoo xam ne ci nafiq da ngay toog nekk ci diine yi def def lu noonu nit ñu xamul dara am na loo def rek rek da ngay génn bu mu fekkoon dañ koy topp ci saa yi dina leen koy limal boo bëri nañu fi alaku ñoo xamoo loo leen alak yow mukk fekk na lañ yàq ni na nit ñëpp jàppee woon ndaxte dëgg-dëgg yàlla kaalawu bën a dëng dikk nekk maam bu ñu yaakaar lool ba léegi loo wax ñu def te yow la ngay def lu dara du ca baax muy musiba wala ci fe ci ku xam yaa ngi jiite nii kon nag xam ne ne man yemu ma te xereñ naa xam naa léegi nga dikk nag ne man.